mbokk yi ñoo ngi leen di uh, nuyu di leen siyaar uh, ñu ngi am mbégte nag di uh, dellu si ànd ak yéen seen site bi di Thimisactu point net xam ngeen ne nag ci dëkk bu sell bi di Touba démb nemmeeku woon nañu fii ci marché bi ay njëg yoo xam ne yéegoon na ba jéggi dayo jëm ci wàllu soble si loolu tax na nag ñu jokkoo ak ki nga xam ne moo jiite service commerce service départemental du commerce bi nga xam ne moo nekk fii ci diwaanu Mbacké ak tubaa département bi yëpp Euh, ñu koy wax jëmb Fall. Mhm. Euh, sëñ jëmb ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax maa ngi fay bu baax. Euh, ndax mën nga ñu dellu si ci li nga xam ne jotoon na fi xew ci njëgu soble bi nga xam ne yéegoon na ba jéggi dayoo. waaw dafa di loo xam ni dafa amoon démb ci situation marché bi. Mhm. ñu ngi dégg ni am na commerçant yoo xam ne ñu ngi doon jaayee soble quarante ba cinquante mille kilo bi ñu koy jaayee deux mille. Mhm. ñu nag dañ fi nekk teewal fi as consommateur yi teewal fi aussi mbuur gi mm-hmm. yu mel noonu bu ko déggee li ñu njëkk def mooy li ñëw xool ci terrain bi naka la demee mm-hmm. waaw bi ñu ko déggee immédiatement ñu nag waa service régional bu Diourbel mm-hmm. dafa ñëw lëkkaloog ak service départemental bi ñu daal di wàcc si terrain bi ñu wàccee nag constaté nañu effectivement ni loolu am na mais séance tenante démb ci ngoon képp koo xam ni fekk nañ ko muy jaayee deux mille francs jël leen sa soble taxaw teg suñuy balance jaayee ko six cent francs waaw loolu nag muy loo xam ni askan bi bëggoon nañ ci lool jëm ci marché Daaru Xudoos ñu defaat descente ci marché Ocass mhm. euh, defaat la même chose mhm. daanaka daal def nañ saisie bu am am am solo daal dee teg balance jaayee ko prix bi nga xam ne mooy prix normal. li ngeen jot a nangu li ngeen jot a nangu mhm. ci ñoom euh, nu mu nu mu tool bu ñu ko doon ma ci ay tonnage. waaw waaw daanaka presque ay neuf ba dix tonnes daal côté yooyu jotoon ko jël. Mm, ci soble euh, waa ci soble waa jaayaat ko. soble bi local la wala importe no importé ak local local. Ah. waaw li ci ëpp local la ñu jaayaat ko. njëg yu jéggi dayo yooyu lan nga jàpp ne moo ko waral. waaw li ko waral mooy souvent xam nga aussi euh, askan bi. kii mhm. euh, yoon euh, gouvernement bi day bëgg jàppale producteurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal. Mhm. maanaam soble bi saa yu ñoree rek dañu naan dañu arrêté soble tubaab bi. Mhm. ba ñi nga xam ne ñooy bay soble di jeexal seen jaay ñu soog a ubbi. léegi diggante soble bii di jeexal ak soble bii nga xam moom lañ ubbi muy ñëw. dina am tuuti tension maanaam tuuti manque manque bu am. waaw ah, ci noonu nag la yenn commercant yi profité waale jégg na manqué ne rek ñu daal di yokk saako yi. Hmm. waaw loolu nag ñun mënuñu koo nangu. <laughs> waaw ndax dañ fee teewal askan bi. waaw hmm. ah, teewal fi également gouvernement. Hmm. lu mel noonu mënuñu koo nangu. loolu moo tax ñu def descente démb daal di def liggéey ndax bi ngeen xëyee tamit euh, toppaan ngeen seen i tànk xoolaat ndax ñoom ñu ngi tege ci yoon wi wala ñu ngi euh, wéy di ëppal ba léegi. waaw léegi li may waxee ak yow nii nii nii marché occas laay génn. di jubali marché daru Xudoos hmm. wa léegi di nga and équipe bi ñu àndaloon démb hmm. di di xolat bi ñu ma sha allah marché oka fekk na ni soble amaat hmm. mais gàtt gàtt gàtt lu mo 3000 sacs bi na fi démb ba sha allah marché bi ñu dal daal na nañ soble ñu jënd kay fa fu tollu mo nii moo xaw a raar euh, gi ñeeg gi mi ngeen xëyee ci marché bi fu mu tollu ni waaw njëg gi fi nii ñu ngi ci seize mille ak dix-sept mille maanaam oignon bi nga xam ni local la ñu ngi koy jaayee saako bi seize mille bi nga xam ni sa importé la ñu ngi koy jaayee dix-sept mille dix-sept mille mais yaakaar naa ne nag bu soble bi gënee bari sax bi mën naa gën a wàcc maanaam daal boo xoolee kilo bi daal mi ngi ci diggante six cent ak sept cent francs kilo euh, ndax euh, yéen a ngi sóoraale tamit màggal gi xam nañ ne fi ne li ci des sax xaw na yées weer Euh, te njëg yi dafay dafay faral di fulu ci yu mel noonu euh, même bu dul euh, soble bi kese tamit pomme de terre beeg yeneen yeneen produit yi nga xam ne dañ koy yittewoo ndax yéen ci bàyyi xel di ko sóoraale ngir lii amoon bañ a amaat waaw lii moom lii moom tension bu bu am la ñaari fan benn fan ñaari fan rek. ndax euh, li ci am solo mooy importation bi ubbi nañ ko. importation buñ ko ubbee macha allah marché bi dina fees dell ak soble ak pomme de terre pomme de terre sax amul woon problème. daanaka soble bi rek la te importation bi ubbi nañ ko àjjuma ji passé. donc booy xool boo dangaa doxantoo ci marché bi fii fan moom i nga fekk macha allah soble bi doy. soble bi doy problème bi yëpp moo doon diggante soble bi di jeex. ak importation bi ñuy tijji mais loolu benn fan ñaari fan la donc alhamdulilah à partir d'aujourd'hui tey jii jeex na teg teg. ndax euh, maanaam bi ngeen euh, jàppee commerçant yooyu nga xam ne dañoo yokkoon mbir yi ndax da ngeen nangu rek mbir mi jaayaat ko wala dangeen ci teg ay daan seen kaw. waaw léegi léegi nag loolu moom dañ leen xaw a dawal tuuti kii parce que euh, jël nañ jaay nañ ko. Mhm. mais jaay nañ ko prix normal. léegi ñu ci bëri nag bon war na la ñu waroon sanctionné mais dafa tombé nag mu nekk ci màggal gi ak ñoom seen. Mhm. ñu xaw ci dawal tuuti yërmande ci côté boobu. képp koo xam ne jël nañ ci soble teguñu la ay daan mais jaay nañ ko daal. Mhm. jaay nañ ko ci prix normal. waaw jaay lañ ko ci prix normal mais teguñu la fenn daan. Mhm. ngay dénk mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi di jaay loo xam ne nit ñi dañ koy teewoo ñu ko ñàkk. waaw ñun suñu problème bi ci ëpp mooy consommateurs yi la ñuy protéger mais consommateurs yi si boppam ñooy war a nekk premier contrôleur yi. Hmm. ñoom ci boppam ñoo war a taxaw. lépp loo xam ne jaaduwul ci marché bi xam nañ service yi fu mu nekk xam nañ ñi nga xam ne moom la war a jokkool ñu jokkoog ñoom su ko defee ñu mën a def descente daal di def li nga xam moo ñu war. nit ki si boppam yow xam nga li jaadoog lu jaaduwul ñëpp xam na ni kilo soble deux mille franc jaaduwul donc bu ñu taxawoon daal ne lii du am daal day woote teel ci service yi kon day fekk boobu ñun taxaw nañ ci teel su ko defee lii amoon démb du mun a am loolu la ñuy ñaax consommateurs yi ñoom seen bopp ñoom ñooy nekk les premiers contrôleurs balaa équipe contrôle bi di ñëw ndax ci département bi xam nañ ne Touba rek dëkku Touba ci boppam rek dafa yaatu marché yi bari na. ndax am hmm. ngeen effectif bu doy pour mën a contrôler li euh, def li nga xam ne mooy seen liggéey. waaw waaw am na xam nga liggéey bi souvent bu dara amee rek. dañuy am euh, appui Diourbel maanaam Diourbel mooy ñëw lëkkaloog waa Mbacke ñu bokk liggéey bi. Hmm. donc du ñun kenn ñooy wàcc terrain bi mais ñun ak ñoom la instant bi nga xam ni Diourbel la ñu àndal mooy commissaire yi nekk Diourbel ñoom ñoo ñëw. ñu ànd defandoo liggéey bi. mais lu mel ni moom saa daan am rek équipe yëpp dañuy ñëw taxaw sur place. te loolu la ñuy def démb ba léegi te instant bi ñu ngi nii ci terrain ci lañ nekkaat. yéen a ngi jóge marché Ocass wala jëm marché Darou Khoudoss ndax foofu lañ koy yemale wala day dem ay Gédé. yeneen marché dañuy bu ñu dañuy xoolee dañuy xooli marché Mbacké. Ah, waaw waaw bu ñu xoolee Darou Marnaan dañ koy jaar aussi maanaam marché yu mag yi daal dañ ko jaar yëpp xool leen. mais xam nga li ëpp solo mooy marché occasion marché occasion la marchandise di wàcc après foofu lay tasaaroo rek. waaw waaw waaw. daanaka boo amee marché occasion ravitaillement bu doy rek approvisionnement bu doy rek euh, kon li ci des yëpp macha allah day jaar yoon maanaam yeneen marché yi dañuy am. d'ailleurs instant bi may wax ak yow noonu sax am na responsable yeneen marché bi may woo. Mhm. man leen euh, ñëw leen marché occasion union bi wàcc na. waaw. waaw sëñ Jëmb ñoo ngi lay jërëw jaajëf jaajëf. maa maa ngi leen di sant yéen tamit. fàttali ne yow yaa jiite service commerce euh, bu département bu Mbacké bool doon amal ay liggéey ci marché bi ci njëg yi nga xam ne commerçant yi yokkoon nañ ko ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf